bien sûr suma grand frère là, suma idole la ci football mu mérité aussi de première émission parce que des fois ñu def ay émission am ñu ko ak nangam sangam mais mom il le mérite d'ailleurs bokku na ci ñi nga xam ne njëkk am audacité genn Malika dem football chance nak moy am nit ñi lekk ci xaliss mais mom il devait dafa ci warona lek lekk parce que gisuma ko ko football poste bi mu doon football muy libéro il y ci un am ci courage beugone limi def. am chance bobu cest à cest am chance fu ma la ndok am chance ci pour te dire ku fu ma la attaquant. am occasion de vivre. c'est parce que baax nga. mom du maye dara.

côté bi mu nekkoon moom dafa dajale woon lépp macha allah amoon na détente ñëwoon na du oser devant les buts donc xam nga défenseur bu boole loolu pour nga jall ko day difficile te il avait ses atouts mom du du osé di def yenn yenn bêtises ci terrain je m'excuse du mot ba paré am audace def ben affaire bi ba paré am détente un défenseur buy jog mom c'est extraordinaire. si mus na am mais soit day yéex ñeu parce que dafa doon liggéey tardé wala bok mu xawa souffrant un peu ñu bañ ko bàyyi pour bu ka bi critiquer ñu mën ko dugal mais pour mu nekk toute une semaine entraîné ñu dem match te ko bon loolu loolu loolu mooy géej gi am na ndox def loolu. quel est son match de référence Le si sa yow si sa xalaatu bopp. match bi may bi nga xamni mom la ko sétane mu def match bu ma neex neex c'était à yëmbal boobu ASC Malika dañ ko dañ doon fubal yëmbal donc ñu finalu fofu mu nekkoon libéro donc match bobu mom sincèrement duma ko gaaw a parce que cadet laa woon ñu ñëw football en première après ñu sétane ko donc match bu dess ci man la